CNG dama nekk xale nekk ci làmb bëgg ko lool di ci dox di ci wax di ci nekk aussi ba ñu xam ma ci ma remarqué ne 26 ans CNG moo ngi fi même politique bi nañ yor te 26 ans amut mbindeef bu bëgg a taxawoon ñëw ne bëgg naa remplacer Alioune nit ñi di ko dégg ma remarqué ne 26 ans aussi démocratie amu ci ndax lan mooy démocratie mooy ku ci nekk. wax sa xalaat ñu jël sa xalaat boole ko si li nga xamante ni moom nañu war a doxalee et je pense que bi ma koy def c'était pas évident wax ci bëri woon na coow li bëri woon na mais résultat yaa ngi nii tey. bi Kéba eh, jógee dëkk ma loolu bëgg a dëkku mbër mu toll ni Alioune Sarr eh, say bokk say bokk terewuñ la wala say proche ñu leen ni non il ne fallait pas wala Kéba moytu sa bopp wala Kéba nangam ak nangam. dégg naa si lu nekk nag dëgg dëgg la yàlla bëgg dégg naa si lu nekk. comme dégg naa ci lu ne soo ko bàyyiwul lii dina la dal soo bàyyiwul CNG lii dina la dal dégg naa ci lu ne waaw mais xam nga su fekkee da nga am ngëm yàlla te gëm ne Alioune Sarr jàpp naa ni ni ñu ko xamee di ko ko gisee du def lu bon et yaakaar naa ni foofu amul risque te nit ñi nañ bàyyi kàddu yooyu loolu gaafal nit la te yaakaar naa ni doomu aadama su fekkee ne da nga dem ba am njaboot am na yenn kàddu ya nga xamante ni su ko nit ñi di yëkkati ndax alim sar du wax loolu mais nit ñi koy ya, wax léegi nak wax joju nit ñi di wax dañuy dem baragal ko te loolu warul. tay keba bu ñu doon wax ni que ñak na certes fal nañu beneen bureau CNG bu bes keba bu doon japp ci li ko xaj dañ ko ko xañ wala dafa japp ni ko li ko xañ ci mom la. non xam nga fofu ñak amu ci ndax man dama japp ne man ma am ndam ndax li ma doon xex japp naa ni moom am tey. Euh, le changement. le changement même si changement bi wax man à mon niveau gisumako. dama japp rek ni tour yé changé waye nit ñi changé mais est-ce que vous tamit jaar na ci yoon bi waroon tax ñu mën ko jox mbir mi. xam nga xumtu nit ñi doon def man ñëwuma xumtu man poser un débat ñu waxtaan ci. te porte na tey ses fruits parce que soo déggee ñu ne bëgg nañ 2022 ñu dem fédération kon suñu waxee fédération rek candidature dina am ñëw nañ ñu jël monde làmb yëpp genn wàll gi ñëpp ñi ñu yaakaaroon ni war nañoo mën a waxtaan ak ñoom ñu convoqué leen waxtaan ak ñoom président Alioune Sarr dem na indi nañ keneen arbitre yi ñu ne woon dañ leen raje ñoo ngi waxtaan ak ñoom pour delloo si leen âge biñ a doon 45 ans yóbbu nañ ko presque ba 48 kon je pense que résultat yaa ngi fi ñun benn xeex lañ doon xeex xeex bi nag du woon pour falu wala bañ a falu. ba dama dégg souvent que naan je gagne sinon j'apprends. mais évidemment xam nga tey jii man j'ai gagné man à mon niveau. ndax dafa ma leer nii su fekkoon ne lu ñuy sànni carte yow mi nekk journaliste ak ñii seetaan xam nañ ni su par parloo amut a quatre-vingt pour cent damay leen di gagné loolu lu ma wóor la man. mais ñi xam làmb ñëpp dañu Keba jaarul ci yoon bi parce que pour pourquoi Keba euh, wartu mën a jël téléphone ne monsieur le ministre dama la soxla ci audience ñu toog Keba wax ko bëgg-bëgg loolu dem na ba bi muy. bi muy def ay consultation gis na ni bon malgré coow li fi amoon lépp consulté ku mel ni Keba Kanté da ngeen problème personnel wala Keba moo rëy ci daw talal ko loxo. non xam nga dama jàpp ne ministre bi sax maa ngi koy nuyu au passage di ko féliciter ci benn kàddu gu mu wax bi euh, Birane Sène ne continuité dafa ne ko non non kon mom ci bopam woote na pour rupture rupture ak changement am ndax ñun liñ doon prôné moy le renouveau té terme yoy la utiliser alors xam nga dafa am la nga xamanteni bour nit ñi dañ ko dul bayé xel un ministre de la république manam ndawal réew mi la sénégalais yi ñoom ñoo tànn le président Macky Sall le président Macky Sall xool ko tànn ko moom ñun ñu nekk ay sénégalais maanaam ministre bi ñun ñoo ko ëpp doole ndax fi mu toog di fa nekk ñun lay liggéey liggéeyalul boppam làmb si biir ministère bi mu yor si la bokk ñun bi ñu jógee ay amateur nañu ñu bokk ci làmb nañ dama jàpp ne waruma ko forcer pour mom mu jox ma waruma naxante ak mom pour mom mu jox ma moy mooy xool su ko doyé mu ma ma ko doyul duma wo mais man personnellement Matar Ba awma ak mom ben problème mën nañoo wàññi sax li ñu daje. amuñu problème politique non non amuñu non xam nga sur le terrain politique musu ta taxaw wax ma taxaw wax kon peut-être que mënaam ñu kan ya. eh, am problème par ricochet loolu wóoruma par ricochet mooy mënaam ñu am problème par ricochet mom euh mais est ce que keba jëlone téléphone mu woko ko benn am rencontre bu ko défé xam nga wolof dañ nan kérok la yow keroog la yow yayoo dàq parce que ñi ñu wartal yëpp ci lamb eh, bu ñu rapproché loolu ñu ñuy rapproché Kéba waaw xam nga ñom seen vision la bu loolu amoon bu suba kenn du yay keba dañ nan keba kat def na li mu war def ginnaaw bi mu fësalee ay ambition lu bari ci mën làmb aussi àndoon ci ak moom. dañ ko dañ ko jox le choix moom. na ko xoolal ki la neex xolal ki la neex ñun ñu falu ñu ñàkk falu la ñu waroon wax ci làmb wax nañ ko. Keba ba tey am na ay ambition. si. CNG. non CNG man pour man existé tul sax pour man ñii fi nekk dañ fi jaar dem après fédération nañ jëm. après parce ministre bi ba tey wax ku ci fédération dafa ne ci deux ans manam quand même loolu c'est un pas. wa d'accord mais bien xam nga fédération depuis 2018 mo ngi wax dénkoon na mission bi Alioune Sar te yaakaar naa dénkaat na mission bi Bira Sène léegi nag suñ demee nag ba di waja jéxal 2021 wala 2020 bi su jeexee ba ñu dugg 2021 suñu xolé xam ñi bëggu ñu dem fédération su boobaa tamit dinañ génn waxaat. tey changé nañu. Euh, ñu ci bëri dañ ni euh, même système bi mooy demeurer ba tey donte que dañu changé nit ñi mais ba système bi fi nekkoon moo fi nekk tey Keba est-ce que dafa parewaat pour combattre ce même système. Wa xam nga fi mu toll nii nekkatuñu ci période bu ñu war période bu ñu observer ak encourager nañ nekk léegi nag Bira Sène moom mooy wane ni du moom mooy Alioune Sarr. Keba xam nga Bira Sène non wax dëgg neex yalla nak kérok la koy soog a waaw deug la yalla bëgg na xamoo ci mom benn qualité ni benn défaut. non mën naa mën naa xam ay défaut parce Sénégal moom soo xasee ba falu say défaut rek la ñuy wax mais je ne l'ai pas vu à l'œuvre et xawma fu mu mëne déglu naa discours am te il me semble qu'il est engagé pour réparer les erreurs antérieures nga xamante ni moo amoon dem léegi nag ñoo ngi koy xool di ko observer amaana ni peut-être. tombé waral ay gaf limu waron dafa waron a doon président CNG fekk mu nek xaritu Alioune Sar peut-être aussi luñu ñu la peut-être aussi luñu programmé la l'essentiel ñun xaaruñu ko ci moom mu doon Alioune wala bon doon doon Alioune Sar dañ koy xaar pour mu woné li tax ñu tek ko. bureau bi ni ñu ko falé euh, gis nga euh, ay tête ku ci melni mang de mu ngi ci bir ku ci melni ay Abdou Dane ku ci melni ni Alioune jaay tay te textuellement. Euh, képp kuy manager amoo droit siège ak promoteur ak promoteur. ah évidemment xam nga tey man dama jàpp ne foofu ministre bi dafa jox gars yi ay paracétamol pour ñu naan ko. c'est-à-dire que dafa leen dugal ci bureau bi pour ñooñu duñu mën a génn wax mais tey soo xoolee ñi nekk ci bureau bi xam nga li ma xaw a metti tuuti mooy gars yi dañoo desee gëm li ñuy def ndax dama jàpp ne soo d'accordul ci dara waroo. sax naxasaale pour bokk ci man tey suñ ma limoon boole ma ci bureau bi si journée bi ma woote ne leen nañ ma ci génne ndax xam naa ni li ma doon xeex gëm naa man personnellement ni dafa nar a gën a doy waar sax ci kanam ndax tey dama lay jox benn exemple Abdoulahat bi ñu def porte parole Abdoulahat njaay jënd na licence promoteur daaw yaakaar naa manager bu ñu xam la tey su fekkoon ne dafa doon xëccoo ak par exemple promoteur bour dat far yalla mom mu nek ci logique gagné ko ñu jox ko mais nit ñi lan lañuy wax fay dañ koy parlo ndax dafa nek CNG su tëggee combat amul reliquat ñu admettre ko mu dem mu am problème lu ñuy wax parce que dafa bok CNG man lima ma gëm moy gouvernement Sénégal 33 ministres nañ ci def ñom ñoy doxal réew mi

que di xool ñi nga xamante ni tey dañ leen ci boole pour boole leen ci noonu rek mais seen boole gi ñu leen ci boole man jàpp naa ni du sax seen njëriñ parce que problème su amee la gisoon nga ko fi CNG bi mujj Gaston Meng boole woon nañ ko ci. mu génn mu génn ne aw ma jot mu ne aw ma jot. Abdou Aziz aussi ñëpp bopp. aw ma jot. da nga ni que ça sera la même chose. non mais si euh, ça sera la même chose parce que tey jàpp naa tout ce beau monde est-ce que en réalité làmb soxla na loolu Je naa comprendre tey ñu jël Pa Abdou Fall président des promoteurs mu nekk fa. Gris Bordeaux waaw si Gris président des lutteurs mu nekkal ko fa. Hmm. tey ñu jël président manager yi mu nekkal Le fa président entraîneur yi mu nekkal leen fa su boobaa problème du am. mais soo bëggee jël ñëpp dugal leen ci pour kenn du mën a wax te ñiy xeexal làmb laa jàpp ne genn wàll gi yëpp ngi ci biir te commencé na feeñ Bécaye mbay génn na ne ne d'accordul te pourtant si la bokk du jànjee ko commencement bi génn na ne d'accordul te pourtant la bokk kon loolu jàpp naa ni luy tardeel làmb la ministre bi nag peut-être que gisante na ak ñoom waxtaan na ak ñoom